Euh, Vieux Diouf ñu seeti du Ndiaye pour question internautes yi uh-huh. euh, parce que li ñu dese ci waxtu euh, daanaka bariwul minuit ñeenti simili moo ko teree siiw. Uh-huh. allo Mamadou Ndiaye. waaw maa ngi lay maa ngi lay dégg soxna Dieynaba. waaw na Amine waaw naka naka foofu naka. côté boobu ndax mi ngi yëngu. question yi bari na lool sax. mais sànq Makumba dafa sàq mi lancu internautes yi. ci question bi mu posé Makumba waaw. <laughs> soo amee li defante ak moom de. question bi mu bi mu bi mu posé ci euh, projet am yeeg ci ak ni mu fas yéene euh, amalaate mairie ndakaar bu gañe Waaw. surtout ci ay programme ak yooyu dafa am solo. Mhm. am na ci euh, benn internet bu ko posé ne ko ba xam na déglu na programme mu adversaire am yi. ku ci mel ne lan la ci xalaat. Mhm. ndax déglu na sa programme mhm. man sama sama programme moo ma intéressé. ah doo jël ci xool ci ñoom pour pour xam na ñuy def pour non ku ci nekk ak sa vision. Mhm. ku ci nekk ak sa vision man xam nga am na lu ma jot a commencé. Mhm. danaa ko bu campagne bi commencé commencé naa sax di ko décliner ci sama visite de proximité yi. Mhm. danaa ko won nit ñi yokk ci li ma bëgg a def ci programme yu bees yi. te loolu maa ngi dégluwaale nit ñi bu fekkee ne am na loo xam ne man prévoir ma ko sama programme je pas ajouter. Mhm. pour décliner mon programme pendant la campagne électorale. pendant la campagne. Mhm. Mamadou Ndiaye. voilà euh, beneen bi mooy euh, ñu ne moom dañ koy reprocher parfois euh, ci bi mu ñëwee ci boppu meru Ndakaaru écarté ñi nga xamante ne dañu jege woon xalifa Sall. loolu lan la ci xalaat. <laughs> loolu moom loolu moom amul. gis nga man bañ ma falee ci salle bi laa ne je la mais à tout le monde. jeune na jeune ne renvoie personne je ne fais pas sauter le cabinet du maire xam nga man bañ ma falee normalement cabinet bi dafay sauter mhm. changé wu ma kenn ñi fi nekkoon ci xalifa sàll ba tey jii ñoo fa nekk ba tey dàquma kenn écarté wu ma kenn waaye nag sama liggéey dama koy def normalement teg ko ci yoon mhm. ñiy wax écarté am na lu tax ñuy wax écarté waaye duma toog fii di ko wax Euh, écarté wo leen donc. Euh, écarté wu ma kenn mi ngi noonu. Hmm. Ah, euh, réponse bi xam naa dinañ am réponse parce que mu ko gis ci chaîne YouTube bu télévision Futur Média gis ngeen ñi ci chaîne bi ñëpp ñu doon suivre. bari na ci lool ay internautes yi nga xam ne tamit dañuy suivre. Uh-huh. en plus questions yi dañ doon jaabante diggante Facebook ak YouTube. beeg Instagram bi actuellement bari na ci ñuy suivre waxtaan bi. am na ci kenn koo xamante ne mu ne lu tax mu arrêté yenn ci projet yi nga xamante ne Khalifa Sall moo ko sosoon. maanaam mbirum meew mi. ak santé informatique bi ak mbirum sport bi nga xam dañ ko doon def ci école bi. très bien très uh-huh. bien Aïcha. le à l'école uh-huh. xam nga lu tax amatul. le lait à l'école école primaire lañ ko doon jox. bi acte trois ñëwee école primaire yi dafa dem ci commune yi. ah waaw ñun léegi CM yi la ñu yore ak lycée yi moo tax lait à l'école amatul. te ñoo moom du ñu naan meew waa CM. ah dinañ ñaanee ko mun nañ mun ko mun nañ ko programmer waat xëy na loolu dina dugg sama programme bu bees bi. benn parenthèse bu ndaw rek. <laughs> léegi lu tax ñu nangu école yi waxoo dara ñu nangu marché bi nga wete ñaamu ci. nga ne. école yi bi ñu ko jëlee waxoo dara. da nga non lu tax may wax c'est la loi. Hmm. loolu du ma wax. ci acte 3 décentralisation loolu ci acte 3 bi la. Hmm. mais mais Sandaga bi c'est différent c'est différent kii eh, yi eh, eh, loolu kii bi la loi bi la. loi bi moo ko mais wax na beneen Mamadou Ndiaye lait à l'école mm. bi la ak lan. ak sport à l'école. ak sport à l'école. sport ba léegi am na. ba léegi am na mm-hmm. Mm-hmm. on a un programme bu affaire sport moom mm-hmm. dama am na benn directrice boo xam ne elle est tellement compétente elle est jeune moom moo yore directrice Euh, de la jeunesse et des sports. et elle fait Fanta Diallo. Fanta ah, elle fait un travail superbe. Mm-hmm. colonie de vacances yi sport à l'école sport dans le quartiers. waaye yow. <laughs> non. Ah. il ma am temps hein pour wax loolu yëpp est-ce que ñu dem ba 4 heures du matin Mamadou Ndiaye. Euh, beneen question bi nee na euh, am na ñuy laajte ne. Mm-hmm. feu yi daanaka gisatuñ ko ci Ndakaaru. mu ne. feu yi. feu yi. waaye yéen. sëy kay ñu ngi Dakar buñ koy gis ma nag BRT bi dafa am yu ñu déposé woon. waaw bind nañ leen sax ba wax leen ñoom ils ont répondu pour dire que nañ ko delloo. mais ci BRT bi. yi ñu yàqoon événement mars yi. waaw yooyu itam am na yu ñu ci delloowaatoon yooyu bi événement mars yi pare am na yu ñu delloowaatoon mais bi BRT bi ñëwee surtout sur Bourguiba dañ ko déposé yëpp. Mhm. mais là on a écrit ñoom ne leen danañ ko. delloowaat danañ ko delloowaat ah, waaw waaw. moom Ndiaye maa ngi lay déglu moom Ndiaye waxalaat. nee na nga yokk ndax am na programme pour désengorger capitale bi ndaxte gis ngeen dakaar ni mu étouffé embouteillage yi fii guddeeg bëccëg actuellement ni moom la ñuy dund est-ce que ci sa programme boole nga ci loolu. nan la ñu fas waaw la mobilité mhm. la mhm. bokk na ci xam nga ñun dañuy liggéey ak CETUD. Mhm. mobilité nag pour mu am Dakar li gaa ñi di bañ a dégg. il faut ñu désencombrer. ñu dégager trottoir yépp xam nga lu tax oto yi circulé tuñ parce que nit ñi ci tali bi la ñuy dox. Ah, tali bi oto yi ak nit ñi ñoo ko bokk. Mm-hmm. donc pour vraiment que vraiment oto yi mun a circuler bu baax il faut ñu désencombrer il faut ñu defaraat centre ville bi loolu yépp ci programme la yoo xam ne gis nga pavage bi xam nga plateau presque mm-hmm. pavé woon nañ ci lu bari usine bi bu démarrer on va continuer le pavage euh, désencombrement xam nga am nañ beneen projet. Makuba naa projet boo xam ne. la vieille ville. xam nga xam nga boo gisee ma doon xeex ci Sandaga. gis nga une ville dafay am identité xam nga bu ñu ne dañuy toj rek pour def ay tabax yu bees ay immeuble suñ bëggee def ay immeuble ñu dem Diamniadio c'est là-bas la nouvelle ville mhm. mais l'identité de dakaar c'est le marché Sandaga c'est les beaux batiment boo demee ancienne préfecture buñ ko defaraatoon day rafet. chambre de commerce ñu defaraat. ñoom xam nañ loolu parce que gare bi bi ko naree toj dañ ni on. refait ça xam nga gare bi justement xam nga foofu laa la bëgg waxee projet bi ñu am foofu xam nga gare bi du ville moo ko def état moo ko defal. waaw moom laa wax APIX. gis nga euh, foofu espace boobu entre la gare l'hôtel de ville le port de Dakar nous on veut ouvrir la ville sur le port de Dakar te foofu signé nañ convention avec le port de Dakar et avec les le Majal le Majal c'est la fédération des. des agences urbaines marocaines dañu am projet boo xam ne dañuy defaraat foofu ba nga xam ne dañ koy defar ba mu rafet dafay espace piéton oto dootul jaar foofu loolu yëpp ñu ngi ci xalaat pour defar ville bi pour defar centre ville bi nga xam ne da nga mën a continuer nag di dox tranquillement sur les trottoirs dem di lécher vitrine mm. ah xam nga loolu amatul Dakar léegi ba pare ñuy defar piste cyclable piste cyclable sax avec le BRT là c'est prévu de fair des pistes cyclables waaw loolu yëpp bu ñu ko defaree daal di fleurir Dakar nettoyer dakaar looy waxati. comme pare mais ah? am nga financement. bi aussi <laughs> ah, am kii Sandaga am nga financement am nga financement bi. am naa xaalis. Mm, kii wax na ko déggoo mu neex milliards. Mm. man Sandaga man kese mën naa ko mën nga ko defar man kese mais comme que xëccoo def ci amoon. Mm-hmm. ma bëgg a rek. Mm-hmm. toujours dans cette démarche. participative inclusive seddoo ak ñëpp boole ànd liggéey suñu réew parce que suñu réew la li ñuy liggéey nit ñi la ñuy liggéeyal lu ñuy xëccoo. Mhm. lan la ñuy xëccoo. moom Ndiaye. oui. des na wala. dernière question bi laa koy laa koy baaxee. xam naa ni du neex du neex Barthélémy Dias une fois nga gagné. Euh, waaw mairie Ndakaaru est-ce que di nga woo sa doom ne ko kaay ñu liggéey ci mairie Ndakaaru. ndax di nga woo waaw ah, man damay gagné sax. Ah. su ma gagné ba pare dama koy oo ne kaay sama doom yow xale man sa yaay laa ñëwal ñu ànd liggéey loolu laay def. di ko def. su gañee allah su gañee nag di allah su gañee di nga jàppale man liggéey rek man liggéey liggéeyal Dakar waaye liggéeyal Dakar loolu rek moo ma soxal leneen soxalu ma. moom bëgguma dem palais man je veux président de la République. Ah, ah moi je veux être maire de j'aime Dakar. muus nga dem ma capitale kenn dàqu la politique. <laughs> dara nëbbu boppam. sànq bi sama lanc. may doon wax naan nu mu muusee nee na bëggul nekk présidente Mame Ndiaye. donc euh, noppi nga. waaw merci mais yooyu rek la dajale woon ci comme ay questions yoo xamante ni eh, ñu ngi ko jële ci euh, internet.